أهلا marhaban bikum aji saar fa wax ne Ousmane Sonko su waatee ne mësu ñoo séq dara mu retire plaintam bi réew mi yéene kaay ñu ko xamal direct news ne aji saar wax na génn na ca tekk te kaaralam ga ba pare andi ay tuuma yu garaaw yow seetal nee na Ousmane Sonko fa maa tëkku na fa may rey moo tax ma nangu ànd ak moom lim ma violé nag tëddee ma mënuma ko compte fa bari lool ëpp na ay fukki yoon di dem ba fi mu toll nii faa ëmb maanaam sonko fa maa biiram yëf yi nag aji saar nee na amul benn kompaloo makki Sall mi ngi ci tudd nee na maa ngi waat ci sama bàmmeelu ndey laa taxaw ak barke Cheikh Ibrahima Niass mësumaa dajeeg Macky Sall waxuma laaj di wax ak moom tribune yéene kaay na aji saar nag fa dékku Ousmane Sonko yow seetal nee na ko man waat naa yow soo waatee ne musuñoo seq dara ma deltu ginnaaw ci kalaame bi ma la kalaame ak yoon te man yàkkamti naa ñu jëm ci yoon procès maanaam ñu na maasaate kat bi aji saar wax na lépp su populi na ko kii kay fa doon suyewaat film rek yëfee nam tëddee critique yéen a kaay ne kii kay fa gën a taqal sonko ndax yokk ndañ ne fa ko hëmbal aji saar ci le quotidien yéen a kaay nee na suma ma xamoon ne plainte bi nii lay mujj fit fitna ji taal sénégal bakkan yu bëri rot ci konoon faay denc rek sama naqar bañ a plainte ba tax faay jéggalu sénégalais yi enquête yéen a kaay ne aji saar nag seetal na njiit réew mi Macky Sall ne laale wut taqewut ci yëf yi sonko nag wax na ma sax ne ko gis nga man mii su ma la teeloon a gis yow aji saar yow laay takk ñaareel faa takk jabar sonko nag wax na ma lépp ci dundam ay sekkeram lu bëri la ma wax bokk na ci sax diggante moog ay jabaram yegg na ba ci ay robb bu rouge bu jabaram soloon ba tey aji saar ci les ko yéen kaay nee ñu bëri ñu ngi wax naan sonko fa jël fetal teg ko sama bopp bi pour ma tiit déedéet deful loolu de moom fa summeeku rek teg fële yéréem yi ma gis fa fetal ba tiit léegi nag ci la ma jàppee xoj ma ba pare tëral ma ci suuf ñaan naa ko sax na ko bàyyi ma mu ne ma nga foog na occasion bii danaa ko bàyyi mu jàll bi mu dugalee loxoom sama xawra yi ci la gis ne man mii jànqalaa musumaa xam góor mu ne ma affaire bi ci lay gën a moo njëkk a ànd man musumaa xam góor man fa ñuy sangoo fu nekk ànd na fa ak man capitaine Touré bi nettali woon yëf yi rawoon enquête bi nee na laajoon na ma ne yow kan moo la ëmbal ma ne ko Ousmane Sonko te booba ci kanam ndey xadi njaay la borom salon bi ba ndey xadi sax wax ma ne ma da ngay ëmb bi nii nga koy yàq defal nii defal naa loolu ci kanam capitaine Touré la source a yéen a kaay na robb bu jabaru Sonko ba solo nag ay secret mbir yu bëri daal nee na Sonko ko wax wal fajir yéen a kaay ko voilà léegi yow Adji Sarr wax ba pare léegi bàyyil sénégalais yi nga foog na ñoom fa ñoo dof li nga wax démb bëri na ca loo xam ne yow fa ngaa tuumal nga ne Sonko moo la ëmbal ci yoon bi nga ko njëkk a gis le 2 février 2021 na la nga ne ñu ne déetawaay ba nga demee hôpital certificat médical ba lan la wane te yow hôpital Grand Yoff nga demoon ñu ne déetawaay Pape Samba Sow avocat bi mooy ki wax ne moo bind plainte bi moom wax na ne fukki fan ak juróom dalal na la yow Adji Sarr ca bureau ba pour jox la ay conseil te booba viol bi heure ba jotagutoon léegi loolu muy niru nga ngaa wax ne yow Sonko moo la ëmbal bi ngay jeexal wax ji journaliste yi laaj la ne la ndax da ngaa ëmb nga ne loolu du ma ci wax dara ma koy garder sama vie privée la kon ñaari wax a ngi noonu ak yeneen ak yeneen direct news ne jigéenu benn bokk yaakaar yi ñoom am na te mbéy jaay ak ñoom seen ne nañ nii fa ñoo bëgg dem atte ci yoon procès yo fii leer vox populi ne si jamono jooju Ousmane Sonko moom demoon na seeti ji Malick Gakou Malick Gakou ko ñun fa ñoo war a boole suñ doole yi ànd nekk benn boobaa kenn du ñu mënal dara waaye buñ tasaarooy rek ñu sànk ñu turbine yéen démb bi mu ñëwee suñ kër gi fa ñëw ngir massaw ñu jaajëfañ suñ liggéey waaye timit ngir défendre liberté de la presse vox populi jox kàddu laat job bu APR ma ngay artu waa M2D nee na leen deuxième wàgg bi ngeen di wax maanaam génnaat ci dëkk bi su ngeen ko defee fii ngeen ñuy fekk fa ñuy ñàkkante ak yéen du yéen a koy wax lu muy def kii wax Macky nag mu bàyyi ñim tëj kaso gi muy xalifa général des mourides lam bëgg nar naa am de ayaw seetal libération daal ci gàttal ñu jàppoon ci fitna ji fi amoon altine ak talaata bii di ñëw ci leen leen di déglu te dañ leen a nar a bàyyi ñu dem ñibbi seen kër yi yéen bi nag xalifa général des mourides kenn du moom ginnaaw juróom fukki millions yu génnee dimbale ko ñi ci loru dox na tànk jàmm bañ nar a bàyyi ñu tëj kaso laas yéen kaay mel ni ku naan ko ñu ñu war a tëj kaso dëgg-dëgg nag mooy nervi ay nit ñoo xam ne fa ñoo yore ay ngàndaay di dal ci askan wi te nekkuñ ay takk der xam ñu wax ak toroxal méttital bu ñuy def yenn doomu aadama yi ginnaaw bu leen takk dari tege loxo si du quotidien jox kàddu Seydi Gassama nee na benn réew nanguwut ñu koy tuumal wàlluk torture ak ñoom seen waaye suñu waxante dëgg Sénégal wàlluk torture ak ñoom seen yi nii lu fi xam la la xam ca jidda caaroy kaw moom du jàmm ginnaaw mbalit mu bari salte fa ngay gis ay ponkal magum jëmm bëgg a dem douche wala ñu dem ca kër ya déedéet ca mbalit ak mbedd ma fa lañ koy defee le mandat yéen a kaay ñi ko xamal réew mi yéen a kaay moom di ñu xamal ne xale bu jigéen boo xam ne fa muuru fañ koo taxal lakk ko ca kër Masaar Allah allah yaayam ma ngay nettali na yëf ya demee ba tey réew mi yéene kaay di ñu xamal na benn waay daal moo gis message ci téléphonu jabaram mu jàpp ne jabar ja fa xam far fiiraanga gu ëpp tax mu jàpp jabar ja fa koo mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee tàlli ñaret mu daal di kos almet daw yëf yaa nga amee ci yëmbal noor waaja nag Abdou Diop la tudd mujj nañ koo jàpp mu ne fiiraange gu ëpp rek moo ma ko def loo ñu mujj waxtaan ba jubalewaat leen ñoom ñaar waa ma ne xam ngeen ne yenn fiiraange feebar la téléphone téléphone sax taxut nga foog ne ki koy oo faram la wala faam luñ bu la jaralee nga topp ko di ko surveiller ba gisal sa bopp te loolu sax coono la gis nga jigéen moom rekk mën a fiire boppam li mat ñaan yàlla mooy dajee ci ak ku baax fay téye boppam foo nekk ak foo nekkul nag